foofee la ko rasulullahi sallallahu alayhi wa fekk ne ko ahmadou muñal sa naaw la yi ngay teg ba dey jaar nañ ci lu gën a métti lii muy sahaaba yi foofee la ko ndeyam ju baax ja fekk soxna jaara bu so mu fanaan fa fanaanee jàng suratul baqara suratu ali imran di julli yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ba jekki-jekki gis fenêtre bi ñu defoon ci néeg bi nga xam ne fenêtre boobu ñaari baaraam xaju ci bi ci ceeneer di tàmbalee jaar di dugg laa xam ne ba sët na ñu xëy suba génne ko patam patamee ko ci bëccëgu ajuma gi mayuñu ko sax mu mu nekki ñu jiitalaat ko mu génn kanjël joob ñu jëm moom poor ba dugal ko ca gaal ga tëj ko fa gaal ga nee na ko roog Cheikh Rafal moo gunge ak mbagi taalibe yi ba ma demee ba teg sama dégal sama tànk ci dégal bu njëkk bi ci boto bi laa geesu xool leen ne leen dellu leen ci digal ya maa ngi dem maa ngi del siwaat naqar wii ngeen am tey ëllëg dina ñëwaat ngeen am mbég moo xam ne nii dootu jeex mukk 19 septembre 1895 ren jii ñi ngi ci septembre 2019 téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent ginnaaw xew-xew ak tey jii cent quatre cent vingt quatre ans ci ren jii jërëjëf Baye Fall cent vingt quatre ans bañ indee sëñ tubaa ba cëg bu metti googu ba tey jii cent vingt quatre ans murid yi gëm seenub sëriñ bëgg ko wóolu ko doyloo ko yaakaar ko murid yooyu ñoo day lay milliard ñëw ci suuf siñ doon sonal sëñ Touba tere koo julli timis xatal ko ñu tabaxal ko fi jumaa yi ay milliards mi ngi nii jumaa ji day fay na néeg bu xat boobu jumaa ji ku néeg boobu ndax xare woon jumaa ji war naa sell sa xol nee naa leen sëriñ bi bi muy ñëw dañ ko doon làq sëñ Muntaxa nag bi muy ñëw barki démb ndax làq dañ ko mu déet ma ngay sàlli nab jant feeñ ca kaw kenn mënu koo làq mu tàmbalee Touba jaar ci Ila Touba jëm si Touba Dakar jóge Touba jaar ci Ila Touba jëm si Dakar mbedd yi ñu di ci taal cuuraay di parfum mbedd yi ñu mu neex ak ñi mu naqari na mugg mu ko waral Dakar ngi nii suñ Touba moom kenn mënu ci dara ku dem sëñ Touba ko naqari woon masaalik war na laa neex mbég mii nga xam ne nag lim ne bayit yu nga xam ne euh, ilal muntaxa awsil sururan wa qaddiman wa min nii taqaabal xidmati wal tuasiman bi sëñ Sidi Muxtaar wàccee liggéey rek la murid yi xam ne sëñ Tuubaa nee woon ne leen nii lay toftaloo min al muxtaari ila al muntaqa noonu rek la demee bi sëñ muntaxaa di ñëw am na bayit woo xam ne day mel ne bis boobu la ko sëñ Tuubaa bind lil muntaxaa wajaxtu fi dakaaru sikram bihi xat ku bibal makaaru man Ahmadou bàmba jublu naa jëmmi suñu borom ji ci ndakaar jublu naa ko ci tudd yàlla yoo xam ne nii borom pexe yi nga xam ne ñoo ma doon fexeel dinañ leen tër rendi leen. te bëgg naa ngeen xam ne sëñ Touba mi fi jaaroon 1895 ba tey jii mooy sëñ Touba moom sëñ Touba du bisaab bu ñuy xooj ba mu yàgg ñu ne sàppi na déedéet sëñ tubaa ba tey mooy sëñ Touba mayam ya bu set day yokk darajaam ya bu set yokk. lépp lu ko sunu borom defal ren bu déwénee dina ko ful lu toll na li weesu woon ci ak dundam defalaat ko ko. kon sëñ Touba 1995 1895 sëñ Touba 2010 moo ko ëpp doole fap ndax bis bu set ay mayam di ay mayam di gën a yokk muy bégloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci taggam yi nga xam ne dafa dafa neex taalibe yi di ko jàng àddina bi di yokk aw yiw di yokk ak leer loolu bu amee nga nekk di dund. lu ñëw nga ne ah lu ñëw nga ne ah ba jekki-jekki ñu ne sa waay kat ginnaaw tisbaar lañ koy denc jeex na de bàmmeel kenn du fa jëf jëf ci àdduna lañ koy defee bu dee nag lu ñëw nga ne ah ah ah lépp dina la rawta doo am dara nun amuñu lu suubaa amuñu lu sëñ tubaa liggéeyam sëñ tubaa baa ngi nii yéen waa Dakar surtout xale yi dugg leen ci liggéey bii ñaar téeméer yomb na leen te xam ngeen ne li leen yomb sëñ tubaa leen ko may connexion connexion yi ngeen dëkkee nga xam ne kenn du ñàkk connexion kenn ku ne boo xoolee li ngay lekk ci connexion ëpp na vingt mille ci weer buñ lay laaj ñaat téeméer mënoo koo joxe seytaane jàpp na la kon nañu góor góorgóorlu ci Touba ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu